day xoteeku day xoteeku gaañaa koy warale bàyyi wuñ leen ci bàyyi wuñ leen ci jàpp nañu caatu foora jàpp nañu caatu foora yóbbu ca biir. Mama Lamine ak lan la ñii luñ jote tey lan la ñii luñ jote Cheikh Omar luy seen problème Mama Lamine lan la Mama lan la. xoolal tarkinaa yi xoolal tarkinaa yi xoolal tarkinaa yi kontaan nañu xool leen xool leen xool leen ñu ngay aalu xool ñu ngay aalu ñu ngay aalu ñu ngay wis mbir yi lii lan la fadel eh tarkinda yi ak dartañaa yi tarkinda ak dartañaa yi du yomb maama la mi ne leen dem maa ko ak maama la mi nee na leen dem maa ko ak maamaa ngi calme mbir yi maama la mi nee leen bin bin nee leen bin bin nee na leen bin xoola Jokal gaa ñaa ngi jàpp gaa yi un par un ñu ngi jàpp gaa yi nee na du dem neen du dem nee dem di nga dem nee na du dem di dem nee na du dem waaye dina dem Cheikh Omar dina dem Cheikh Omar Jokal lu ree nee du dem nee na du dem dina dem Cheikh Omar du dem di dem dinañ la yóbbu di nga dem ay waay danañ ko yóbbu dana dem Cheikh Omar dana dem te bëggul dana dem te bëggul dem làmb gi noonu fu jokkel jëm fu jokkel jëm fu jokkel jëm tarki ndaay ko bàyyi mu jàll.